aoudu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di nuyu di leen ziar ndokkeel leen bal leen ak tey ñu del si ak yéen ci beneen vidéo ci Firi Guent yéen ñu ñu topp TikTok mën ngeen taw ngeen abonné ci sunu page YouTube Firi Guent TV officiel euh, tey dama ñëw ci gént gis kër gu bees kër gu bees danga gént gis ko wala nga gént gis kër goo xam ne kër gu màgget la kër gu yàgg la wala nga gént foo dëkkoon ba dëkk too fa nga gént delluwaat ci kër ga mbaa gis kër gu ñu abandonné kon li nga jàpp tey ci kër laa nekk li ma njëkkee mooy gént kër gu bees kër gu bees day firi jàmm day firi mucc day fii wér ci kan ki koo xam ne yaa ngi ci néegu sëy wala koo xam ne dangaa nekk ci néegu sëy ëmb walla koo xam ne dangaa mës a sëy ba tas kër gu bees ci koo xam ne mësuloo sëy amoo jëkkër mësoo am jëkkër amoo soxna wala mës ngaa sëy ki mës a sëy waxoon naa la ca kaw waaye moom it léeg-léeg mu bokkaat fii léeg dana firi jëkkër ci lu yàggul maanaam célibataire kon ngay jàpp gént gis kër gu bees dana firi jëkkër ci yow dana firi soxna ci yow célibataire bu mës a bu mës a sëy ñoo ci da nga gént jënd jënd kër gu bees ci célibataire bu amul borom bu amul soxna day firi soxna su baax wax nañ ne nag kër ga lu mu rab lu mu gën a rafetee maanaam bu dekkee kër gu rafet day firi soxna su baax waaye ku rafet lool rappelé an baax da ngaa gént nag dugg ci kër gi dugg ci kër gu bees kon li ma la wax dama la koo gis wala nga jënd gént nga dugg ci kër gu bees bu dee koo xam ne yaa ngi ci sëy day firi wërsëg day firi xaalis day firi ëmb ëmb ci sa soxna ci góor bu dee da ngaa gént dugg ci kër gu bees wala mu firi wërsëg wala mu firi xaalis bu bari su ma waxee wërsëg moo gën a xaalis jigéen bu nekk ci néegu sëy génn dugg ci kër gu bees dana firi ëmb dana firi wërsëg dana firi xaalis ci yow jigéen dangaa gént dëkk ci kër danga faa dëkk kër gu bees fekk yaa ngi ëmb day firi doom bu góor ci yow gént euh, toxoo ci kër gi nga nekk dem dëkk ci kër gu bees maanaam dangaa gént toxu ci ngeen am kër ba ngeen tuxu fa day firi tukki ci lu yàggul dara incha allah bu dee koo xam ne yaa ngi ci liggéey day firi yokku ci liggéey bu dee kuy commerce day firi bénéfice lu bari ak wërsëg baax na ci gént bu dee koo xam ne dafa laa fekk nga nekk koo xam ne danga nekkoon ci yoonu caaxaan yoonu dëngate yoonu mooy yàlla day firi tuub ci loolu dem ci la gën gént dugg ci kër gu bees ci ko amul boroom kër dana firi ngoro gu bees ci yow kon kër gu bees sa a ngoog yaa deuxième partie mooy dangaa gént gis kër gu yaatu kër gu ngande bayti kabir waasia koo xam ne am nga boroom kër mbaa nga am soxla nekk di dëkk ci kër gu yaatu lool kër gu mag lan lay firi léeg-léeg dina firi ëmb léeg-léeg dina firi tuub léeg-léeg firi wërsëg léeg-léeg firi yokkute ci liggéey léeg-léeg dina firi palaasu kay su fekkee amuloo ko ci tënk dana fi soppeeku ci situation yi nga nekk dem situation yu gën a baax baax na ci gént ku amagul soxna amagoo boroom kër gént kër gu bees gu mag gu yaatu dana fi sëy ci yow soxna mbaa boroom kër dana fi léeg-léeg nga am yu rafet lool yu nekk ci yow wax naa sànq dana fi soxna wala borom kër waaye léeg-léeg fi soxna wala borom kër goo xam ne dafay nekk ci biir famille bi nga bokk maanaam danga nga am jëkkër boo xam ne ci sa famille ay bokk wala soxna soo xam ne ci sa biir famille koy takkee ba am jigéen xale bu góor euh, kër gu mag kër gu yaatu wax naa la sànq dana fi di soxna ci yow léeg dana fi tukki nag euh, kër gu yaatu moo gën kër gu xat ngay dugg ci kër goo xam ne bi ngay dugg kër gi port bi daa xat lool wala kër gi nga yëg ne dafa tuuti lool ba waa kër gi sax xat baaxul ci gént day firi feebar bu métti feebar bu tar kooku baaxul baaxul góor gént tuxoo fi nga nekk dem ci beneen kër wala salibat wala ku ma sa sëy ba tas wala sa borom kër faatu bu dee góor la dana firi yokkati ci yow ku ma sa sëy dana firi beneen sëy bees baax na ci kenn alaa kulli mu des nag kër gu yàgg lool par exemple nga gént gis kër gu kër goo xam ne daal woon na kër gi daal fu fu yàgg la waaw tabax yi màgget kër gi doy waar ak euh, quatre-vingt-dix pour cent ci gént baaxul wala quatre-vingt-dix-neuf pour cent la ko wax képp koo xam ne yaa ngi ci néegu say gént gis kër gu màgget lool lool lool baaxul ci gént day firi crise métti crise financière wala xat-xat baaxul bu fekkee nag kër ga kër goo dëkkoon ba dëkkatoo fa nga tuxu nga gént delluwaat si kër ga ñëw fekk kër gi mel noonu màgget lool baaxul jigéen gént day firi yii bu njëkk bu ñàkk sa place liggéeyukaay mbaa ñàkk sa alal wala problème ci sa sëy mbaa ay jafe-jafe ci gàttal bu dee nag da ngaa gént ngeen jaay seen kër gi ngeen njëkkoon a dëkk kër gi màgget lool baax na ci gént day firi torof torof yu jeex tuxu fa ngeen dëkkoon ba dëkkatoo leen mu nekk kër gu màgget lool ci jigéen guy ngorowoo wala góor guy ngorowoo baaxul day firi trop trop ci sa ngoro problème yu ci kër goo xam da ngeen faa dëkkoon ba dëkkatoo leen fa nga ñëw fekk kër gi dara newut wala kër gi gën a ñaaw na mel gën a ñànk lool gën a doy waar voilà baaxul ci gént wax ne day firi ñàkk kenn ci famille yi alaa kulli xaalis baaxul bu fekkee ne contraire bi danga ñëw kër gi ngeen dëkkoon ba dëkk doole nga ñëw fekk kër gi beesaat tàq wala kër gën rafet na meloon foofa baax na ci gën day firi benn xabaar bu neex wala xéewal wala bu fekkee da ngeen am kuréeloon ko sànk woon kenn gisatu ko day firi del si gént dëkk ci kër gu kër gu màgget lool baaxul ci gént ko zarik lay dana firi ay bor yu bari léeg-léeg dana firi problème mbaa coow ci famille bi surtout fu ngeen dëkkoon ba dëkkatu leen euh, des nag euh, gént gis kër goo xam ne ngeen baal gis nga kër gi dëkkoon ba dëkkatoo leen fa nga gént fekk kër gi daanu mbaa kër gu màbb bokk na ci gént yi gën a bon ci kuy sëy ñaar dañu wax day fii divorce baaxul ci gént mu des nag kër gu nu abandone danga gént gis ko kër xam ne wóor na la kër gi kër gu abandon la kenn baaxul ci gént ci ki feebar surtout bokk ci li borom xam-xam gën a ragal gën a gën ci feebar maanaam feebar bu gën a yokk ba mën na caa xaj wala ayaasu billah baaxul ci gént kër gu màgget kër gu abandonné nga gént dugg ci baaxul ci gént léeg-léeg dana firi nag dana nekk euh, taxdiriya ahlam taxdiriya taxdiriya mooy ki feebar moom rek naa kaam ki nga xam ne dara dalu la dañuy wax ne léeg-léeg kenn ku nekk ci sa xaal ku ne sa situation maanaam dana firi ñu ne la faggarul gaaw balaa feebar agsi wala mu fekk la feebar sa feebar bi gaaw ci jóg ndax day yokk wala mu fekk la ci jàmm ñu la problème bi ñëw wala mu nga nekkoon ci yoon wu neexul yàlla ñu la gaawal tuub ci balaa nga ciy dee kon léegi rek dina nekk sonn ñu ci yow nga jékki-jékki kenn gis kër gu ne abandonné soññ la ci ne bu dee feebar la taxaw ci gaaw. bu dee nekkoo ci problème problème yu ñëw bu dee da doon mooy alakule an ku nekk sa situation bu dee da ngaa gént nag di fa génn di génn ci kër gi moom baax na ci gént wala nga dugg ci ci biir gént gi génnaat ci saasa ci biir gént gi baax na day firi problème yu jeex alakule an gént dugg ci kër gu nu abandonné gént dugg fa léeg-léeg dina firi dem kasa wala yaasu billah baaxul ci gént yàlla musal ñu kon li tax li ma ci insisté mooy képp koo xam ne gént nga yii teel la wut sarax loo xam ne lu nit soxla na la ci lekk mbaa naan mbaa lu muy dundee nga génne ko ci sa àll lu mu mën a doon sarax mën naa pànk lu ne surtout ci gént yàlla nañ ci yàlla musal wa ma zalika alaahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu